jërëjëf mbokk yi ànd ak ñun dañu déglu boole ci dañu seetaan ñu ngi daal di dellu soit ni ñu koy baaxoo di ko defee seen cabinet bio ma di leen wax ne ngeen dem ci youtube bi abonné si chaîne bi tey mbokk yi li ñu indi tey mooy secret bi nga xam ne dina may ku jigéen ki mu mën a rétrécir vagin mën ko maintenir ci anam yu sell te wóor ak ay produits bio loolee moo tax ñu daal leen wane leen bii secret bari na waaye bii la ñuy jukki rek wan leen ko muy beurre de karité ngay jël nga def ko ay boules yu ndaw ñaaru bulet nga def ko ci frigidaire bi glacé ko soo xëyee suba guddi gi booy tëdd nga jël ci benn def ko suppositoire guddi googee soo koy def nag doo sëy loolee soo koy farataal di ko def une semaine di nga daal di nemmeeku lépp lu nekkoon microbe ci sa kanam day dañ